ñoo tey si kër góor gi côté fii côté côté boulangerie zone ci kaw. côté boulangerie zone ci kaw foofu. voilà loolu nag mu nekkoon seen self info waaye nag mu nekk image boo xamante ni man bëgguma ci sori parce que dafa xaw a doy waar nag dafa xaw a doy waar parce que ku góor kooku nag dañ ko jàpp mm. waaw kooku da doon agressé te nag di agressé ay xale jigéen parce que ñoom groupe lañu woon waaye moom lañ ci jotoon jàpp waaw moom lañ ci jàpp moom lañ ci jotoon jàpp dëgg la mi ngi wax turu ñeneen ñi mm-hmm. waaw ba ñoo ñu def ko noonu nag dëgg la waaye kii nag yaakaar naa ne as ndaw buy xëy di liggéey parce que nag euh, nekk nañ ci réew moo xamante ni nañ ko wax parce que jigéen ñi am nañ jom loolu dañuy yeewu 6 heures du matin ñii 5 heures du matin daal solu daal sol seen yére yu rafet gàddu seen sac dem liggéey parce que am na ñoo xamante heure boobu la ñuy dem xëy ñi ngi yor seen oto ñi ngi dugg ci oto yi daal dem yaakaar naa ni kooku bëgg lu mu terelee njabootam kooku bëgg lu mu terelee askanam mm-hmm. yaakaar naa ko dab di ko dogaale baa nga koy mm-hmm. ko jam baa nga koy sàcc di jël lu mu mu yor après moom moom fan ne ñun ndaw réew mi ñun ndaw réew mi ñoo mm-hmm. mën a defar réew mi dëgg la waaw ñun ñoo mën a euh, tey ji wane wane wane bon exemple baax xam nga mm-hmm. pour tey ji suñuy rakk wala suñuy doom mën a mën a jël exemple ci ñun mm-hmm. waa parce que lii lii moom ñaaw na lool ñaaw na torop torop torop nañ bàyyi xel waaye nañ delloo suñu xel ci yàlla xam nga te xam ne nit euh, boo jógee fajar incha allah euh, jéem a taqale même bu dee cent franc dëgg la man pour man gis nga boo yeewoo maman cent franc war nga ci mën a am mille franc nga teg ko ci dëgg mais agression amul benn. dëgg la dëgg la am na solo am na solo waaye nag def leen ni marchand ambulant. Mm-hmm. moo gën ngay dem di sàcc. dëgg la parce que ñoom ñoo ñu mm-hmm. taxaw ci rond point Sandaga bi mm-hmm. ak fépp marchand ambulant rek. nekk ñu ngi a ndax nag ñoo ñuy jox lu baax ci dëgg la waaw kenn du yéen ci ñun mais foo bëgg ñu dem ya ne <laughs> fi toll nii ah. dañuy def seen affaire yu baax ah. seen affaire yu chic ah. damay bëgg seen TV di leen ko tegal fii ci wane ma ngeen gis seen bopp macha allah mais dama bëgg ñu daal eh, ah, mhm. wala say say brodé yu am maanaam macha allah ah waaw waaw ah Suisse gold bi loolu day day day day day féexal day féexal xol waaw tey dafa neex a xool uh-huh. ay ca maam Sidi yóbbu ma ci boutique Worechic ñu ànd doo daal di koy seetaan ñëwaat léegi léegi ñu daal di koy yaatal rek ay ca ñu dem Euh, maa ngi suñu place bi war bitik bëgg leen présenter suñu tissu yi ñun dañuy jaay voile brodé tissu sañse euh, coton yëpp daal jasner tissu yi jigéen ñi di soxla yëpp daal dañ koy jaay yomb na prix abordable na te bi baax leen euh, présenter suñu ay boutiques le boutiques Waré ñu ngi fii ci HLM euh, H&M, wetu centre de bopp plus précisément en face centre de bopp terrain basket bi donc su ngeen ñëwee ci boutique bi incha allah y a du tout ñun nag dañu